Euh, bu ma ñëwee ci ki nga xamante ni nii mooy Ama Baldé ak Modou Lo seen premier face to face na nañ ko coow la ca am jotul sax àgg noo gisee boobu combat. ay ñaari xale yu am coow am ay gët am mbooloo seen mbokk and ak ñoom non loolu boo ko dee def da nga ko war a waaj waajaat xanaa xamoon na man boo nekkoon promoteur bi damay waxaale waat ak mbëri fayaat leen ku nekk cent millions wala deux cent millions signature bi ma jaayaat billet dañ koy jënd. yóbbu ko arène nationale def ko entre 5000 def concert Wally wala Youssou Ndour après nga def signature bi loolu la nga see gagné doo ko gagné waat sax jour lambu ja bi lambu ji xaalis bi dafa war a génn dañoo war a liggéey fi ñu toll nii bu fekkoon Europe la ñu ngi dawal ay ay ay ay ay ay yeneen oto bu fekk range day xeewi ay pick-up xeewi ñuy génn ay ay ay ay ay ay ay waay ay yaa gën a xam. mooy loolu sama gars sama copain bi borom Turquie borom France moom mi ne jugee foofu fan yi war na maa xam nandal affaire yi ay ñum imposé suma doom day Ama Baldé dafa bëgg jël roi ma koy wax képp kuy mbokkum ñu jóg su bëggee jot roi bi mu entraînement lëlu déggal ay kilifaam toog ci tànkam te mu xam ne am na komba ndax Modou du paa xale la te ñeme na entraînement mën na bëre soxor na mën na dóor Ama Baldé am na fort bu at bi ne prib daanaan la na fi jugee Modou bu at bi ne prib daanaan la nañ suul tànk yi ba si kanam ñeme jam-jam yi jaax xam Modou Lo dafa nekk si loo xam ne moom Ama Baldé comme nga teg ay ay ay pont nde dox leen Ama day ñëw def ful la mu dem Modou day ñëw moom ne la nañ ñemee jam jam yi quoi dañuy nañuy taxaw si pont yi mu jam ñu ñu yëg métit bi xool xam nga def si benn cinq minutes man du ma ñëw si rek di ko dox noonu la làmb yu demee Ama Baldé su fii laa koy waxee lépp lu muy entraînement na jéem a daan Modou si une minute. wala si nekk combat bu gaaw. combat bu gaaw waaye combat bi bu diiree bu amee une minute une minute laa la wax une minute ku tegoon xaalisam si Ama Baldé teggi ko. <laughs> lu tax loolu. dama xam ne Modou Lo bu lamb ji diiree moom moom waaye si diggante une minute maanaam une minute première une seconde ba une minute bu ci jël ame amee Ama Baldé mooy daan. waaye bu rombee une minute premier song bu amee Ama mën na kaa daan bu rombee premier song ba romb deuxième song noo wax dëgg yàlla am Modou Lo day yóbbu ndam li. gañ nag ku si yàlla defal ndam baax na